jërë ngeen jëf mbokki internet yi dalati leen ak euh, jàmm la sa gën a fes mu doon conseil de ministres bi nga xam ne dos na su ko doon amal euh, démb njilla nag di président Bassirou Diomaye Diakhar Faye daal di joxe rek ndigal wax ak ki nga xam ne moo di premier ministre ñu daal di woote rek am ndaje mu xamante ne si rek kilifa yi ñoo koy daal di seq waxtaan rek li nga xam ne jamono jii rek moo am ay jafe-jafe ak accident yu bëri yi ak si tali bi loole nag nu jaa feskee na saa waxtaan jël sa nag ay mesures yu xamante ne si ne du nag benn masla feskee na kaa décidé tamit daat koy doxal daat koy appliqué ndaxte nag li nu nemmeeku jamono jii daal di bëri lool si ci kaw tali bi mu ne accident yu bëri te saa su rek dañuy nemmeeku li xam ne moo di ay bakkan da si daati rot ba tax na rek mu bëgg faa woote am ndaje mu xamante ne si ne kilifa yi ñoo koy daati seq daati waxtaana rek fas kee na rek jël ay mesures xamante ne si ne rek des koy daati appliqué te kenn du si amul yenn lu xamante ne si ne dañ ko ti daati massa rawatina nag ak màggal gi nu dëgmal ak gàmmu Tiwaawan gi ba tax na rek kooku di président Bassirou Diomaye Diakhar Faye jox digal ki xam ne moo premier ministre bi de Ilimani jëwriñ ji na Sonko naka rek mu daal di wootee am ndaje daal daal rek ñi nga xam ne kilifa yi ñoo koy seq daal di càmmar rek lu aju rek jëm si wàllum dem beeg dikk mi ak accident yu takk yi nga xamante ne si ne jamono ji ñi ngi ko si nemmeeku bu baax a baax mu doon mbir mu solo yoo xamante ne si ne saa buñ sa jëlee ay mesures yi danañ wax na rek amul luñ say masta wala sax luñ say wàññi lenn wala luñ say yolamal des koy daal di rek appliqué ndax ñëpp daal di mënu tegu si yoon ndaxte rek ñu wana wàññi rek li nga xamante ne si ne moo di accident yu bëri yi nga xamante ne si ne jamono ji daa des koy nemmeeku lool si kaw tali bi mu doon mbir yi am solo nag si démb nag sa conseil de ba nemmeeku nan fa sax ay yeneen nomination yoo xamante ne si ne daan nas ko fay eh, gis nag ci eh, démb eh, foofee sa conseil de ministre mu doon mbir mu am solo yoo xamante ne si rek état bi bëgg nañ see ay solution rawatina accident yu bëri yi nga xam ne saa su ne des koy nemmeeku si dem beeg dikk bi ba ay bakkar rek di si rot loolee mu metti lool yi nga si ne moo di askan bi ba tax na saa su rek ñuy woo woo bi mu fas kenn sa ñëw xool rek càmmarka ana lan moo waral accident yu bëri yooyu di am ci kaw tali bi